sallallahu taala alihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wassalamu wassalamu wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yal nak yalla nak nangu bal nangu bu rëy la parce que ko xam juma ko xam église xam ni ci community bi lañu bok kon su fekkente ni dafa am lu ñu yëkël di ko muy nimbal ñu koy ci askan bi japp na ne ñoom ñoñu kenn gënu leen ci yeey muy këru gidé yi jakkay ak église ndax ku nekk xam na ni ñun ñoo waroon tabax ay jumaa ak église mais doole matawu ko jaamu yàlla di ko tabax kon ñoom itam maire bi monsieur le maire jël ndimbal teg ci seen loxo jàppale leen ci liggéey yooyu kooku sant yàlla la. kon monsieur le maire ñu ngi lay gërëmaat bu baax a baax di la sant bu baax a baax di wax ni li fi jógee li fi ñu fi génnee muy 10 millions ñu jëmale ko ci jumaa yi ak jàkka yi génne 5 millions jëmale ko ci église bi. dama loolu ndimbalu jëm ci liggéeyu jumaa yi ak jàkka yi ku nekk xam ne ñoo ngi jëm ci nawet. ku ci nek jakkay yi ñoo ngi senn ñoo ngi ruisselé juma yi ñoo ngi ñoo ngi ya, ñoo ngi defaraat église bi ñoo ngi defaraat kon suñu am occasion mu mel monsieur maire yëkkati lu toll nii def ko ci juma yi jakkay yi ak église bi ñu sant yalla di ñaan yalla yalla yalla xeet doole ñun buñu toggé xol ni yarax fak chaque fois en état état ñu nek ay ndaw buñu poser question dañu naan lan motax yarax yaraax ñun mënuñu bénéficier wu ci eh, zone industrielle bi nek fi pour ñu mëna xey à chaque fois suma toggé sama frère le melni modi Dia dama koy naan il faut ñu saytu buñu xolé ni yarax aussi que liggéey yombul mais lan mooy lan mooy doxal dëgg mooy entrepreneuriat entrepreneuriat mooy nit ki jéem a xool si xam-xamam li mu jox jàng mu xool nan la si mën a produire ba mën a tabax dara si boobu nag ñu dem di sooxe sooxe ba créer le premier forum de l' emploi forum de l' emploi ñoo ko defoon en 2016 sous la bannière de vraiment sama doyen Maguette Diop bi fi nekk ak Pierre Camara bi ñu defee forum bi ñu andi expert andi ay technicien mais aussi andi ñi nga xam ne seen xam-xam lu mel ni ay ANPEJ lu mel ni ay ay ay xam ne day may bourse xale mais bu ñu ne xale yi jàng nañu ñii pare nañ jàng mais ñii nii ñu ngi ut xëy mi amuñu xëy mais ñii nii am nañu ay projet laka la ñuy def dañuy dem dem xool tàggal leen lu tubaab di wax renforcement capacité ci dans ce sens ñu dem nag gisi concept concept bi xam ne tey wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm monsieur docteur Dione ici présent avec toute son bëgg uti 45 heures ñu formé leen si entrepreneuriat gunge si li ngay liggéey parce que def naa ne ñun ñëpp def nañ entrepreneuriat jamono dox na ma pour ne xale yi rek tey li nga am lu yombul man dem na ba itam fay sama billet d'avion dem jang entrepreneuriat ba léegi sama projet mo ngi souf ken ken financé ko pour wan ni que rek li ñu am tegi nii yombul li mel ni Mody Diallo def na entrepreneur keneen keneen dafa entrepreneur mais nga def entrepreneur pare ñu wol na kay kaay financé la ma yombul man je disais que monsieur le maire vous avez vous nous avez donné un cas d'école qu'on a bien traité dama ne même bo lo xaar won té subvention bi le fait qu'on a fait une formation sur les caractéristiques entrepreneuriales avec l'ONG Concept aujourd'hui rek cela a permis que chacun de ces jeunes là 45 jeunes qu'on a formés âgés de 12 à 35 ans venus de d'horizons divers tay gi bo xolé do fi xamé tableau ferraille do fi xamé an maris an Village an Marigot an yen an Trois an Kip kep fo xamné zone euh, quartier an bel la tay def naa ils sont tey 45 zeni ku ci xol da nga leen si xàmmee loolu ko defé mané li lu ndaw li duñ ko def si rukk duñ ko def si konk du ko gox dañ koy andi ci bir mairie parce que mairie ñun ñoko mom nous sommes les administrés de la commune an beler une fois de plus bi ñu ñëwee mairie bi nak wax dëgg yalla sous le label ak sous ñi fi nek ñëpp équipe municipale bi le secrétaire municipal et son équipe rawatina le premier adjoint au maire mag monsieur Matar Diaw ñu xaj ñu ñuy vraiment porte yi salle bi ñu nekk fi 3 à 4 jours vraiment ñu def le monsieur le maire jox ay directif boobu sa dara xewagul mu ne ñi bëgg naa 4 jours yi lepp li ñi def ci biir mairie bi ngeen taxaw si muy le service d'ordre muy la sécurité 4 jours machallah bi ko défé wax dëgg yàlla loolu des concepts vraiment que je remercie encore une fois une nouveau à nouveau monsieur John ñu taggal len si lepp lo xamné xal nit ki da koy yex ci entrepreneuriat am idée bi xol lu baax baax ci lañ nak wax dëgg yalla créer ay projet projet yooyu defe naa ne ñu fa jaaroon les conseils municipaux, comme madame Ndeye Thiam monsieur Yero il au temps l'entreprise Pastami. on a fait passer beaucoup de jeunes entrepreneurs mais ñi nga xam ça, nous ñoom ay espéré en entrepreneuriat pour jox xale yi ay témoignages si l'ancien boobu nag wax dëgg yàlla c'est monsieur le maire il faut faire quelque chose pour ces jeunes-là. On sait que la commune Anne Belen n'a pas de compétences pour l'emploi. Même l'État, à, travers ces dénombres, ils ne sont pas des prouveurs d'emploi. Mais il faut créer des dispositifs, autrement dit, même des carnavals, pour que ces jeunes-là puissent vraiment s'appuyer, mais aussi pour, pour voir ce qu'on appelle l'emploi avec les jeunes. C'est dans ce sens, monsieur le maire a dit que allez faire vos projets et vous revenez. Si vous avez des projets, faut le Plus de deux à trois mois, nous avons que pour vous ait des bailleurs, mais que pour qu'on ait des entrepreneuriat parce que pour une formation bi trois jours au niveau de la mairie mais on les a accompagnés on les a boostés on les a outillés pour qu'ils puissent qu'est-ce que la offre d'emploi quelles sont les analyses techniques quelles sont les analyses financières le maire a venu avec l'équipe municipale pour dire qu'ils vont donner un, montant de 4 millions de francs CFA à chaque projet affaire bi je daf ma sincèrement je suis bête. parce que demain, formation formation def nañ entrepreneuriat mais pour nit financer ñu dafa xawoon métti mais jour bu ñu ñëwee affaire affaire bi jaar yoon ma gis nga dugg nga diggee 4 millions am na ñoo xam ne waxoon nañ du am c'est vrai ah am na waxoon non non du am non moo tax bu amee li succès succès la si man succès la si yow comprendre <laughs> donc tamit euh, nit nit bu defee dara def lu baax mais neel kii li mu def baax na bul jéem a sax sonni jéem a kii comprendre li ma la fii nag du man pour man sax gisuma sax ay parti politique wala ay leneen ak leneen gisuma loolu man xam na laa gis maire la ñëw na fekk ñu ñuy def jàppale nañu parce que boo yi nga gis yëpp fi ñu dëkk bokkul kii fa la dëkk xamu ñun ñun déjà ñun xamuñu leen woon sax dañu woote woon rek pour ñu ñëw donc affaire bi bu amee vraiment damay remercier dama remercier remercier aussi conseil municipal bi yëpp comprendre xam ne vraiment jàpp ngeen si te def ngeen li ñu ci war a def ñun nag foog naa da ñu sas parce que tam jël seen xaalis dugal ko mu nekk loo xam ne commune bi la booy yi war nañ gën a ñafe booy man li ma leen ñaan mooy bu leen ñu rus lool wasalaam wax dafa ni irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ñuy ay ndaw de benn Nous am ay réalité sociale ndax ne xam na bi am Pastef it waaye am ñu ñu jàppale am ñu ñu je veux citer en l'occurrence M. Abou Diallo et monsieur ñii dama bëgg ngeen tàccu leen ba waa Madinatul Munawwara jóge xam nga nit xam na li ko war te defu ko góor gi dañ ko laaj ne ko ndax àll jar na nawee mat mu ne ankay ndax àll doy na ni moom te amul mat te àll boo dem la fay ñuul moo fay ñag kon ñii bu ñu leen santee dañ leen war a sant ndax am na ñu fi nekk am compétence yu ñu am toog seeni ruq mbala di def li ñuy def en privé pour am ci dara en retour te ñun ñi fi nekk suñu waxalee yàlla rek xam nañ ni ñoom ñii coono gi ñu am yaakaar naa ne ñu sant leen gërëm leen dong lañ ci am mais lu alalu mbindeef te li may wax ñun ñi fi nekk ñëpp mën nañ ko seede kon ngir yàlla ak yéene bi ñu am pour jàppale seen ay rakk ngir yàlla yéene bi ñu am pour jàppale seen ay doom seen ay frère seen ay sœur dañuy ñaan yàlla na yàlla fay leen ne bu leen Cette rencontre qui nous est réunie ici est un rendez-vous historique. D'abord en raison du niveau de participation qualitative qui s'y attache. Éminent professeur Abou Emoudi, nous sommes convaincus que vous êtes des modèles, des références sûres. Ensuite, c'est toujours enrichissant de se retrouver parmi des intellectuels lorsqu'ils se rencontrent pour réfléchir ensemble sur une question liée à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'émergence Tout ça ici les normes qui à la vie socio-professionnelle. Nous sommes vraiment contents bu nous euh, peut-être que wax avons rek ci concept ndax avons euh, commencé ci formation bi l'entrepreneuriat mais depuis ay nous ngi ñun ñoo fi projet bi wax projet projet ñetti ménage am bourse ñu war pour mettre en place ay entreprise ndax bourse yi ba légui la woon ménage mais KOM dafa pour à la place des bourses financières nous avons leen pour ñu am ay activités productives muy lo xamné nguur gi taxawal na am solo c'est ñu ngi nous euh, du fi rek bourse familiale Kaolack euh, ko Saint-Louis mhm. bourse nous aussi euh, Abou Diallo mi ñu ngi région informatique ñu ngi fondation Suisse former jeunes gratuitement en informatique donc ce aussi def nañ ci ay commencé multiplier par trois les yi par mois donc depuis que nous avons fait ce yalla nous avons fait. def nañ ci ay état politique d'emploi effectivement il état né 15 000, 15000 état recruter 30 000. mais xam ngeen lan moy différence bi lan motax nit ci duñ recruter par exemple ay ASP Nous recrutons 30 000. Mais mais 000 ASP yoy ngeen di recruter dañuy jël positionner service état yo xamante avant ñooñu dañ dan employé ay privé bu ko défé rupture de contrat privé l'État am état jël trente de l'autre côté ñu gis société tëj nañu mettre nañu au chômage 50 000 personnes donc c'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, entrepreneuriat fay initiative bo xamante waxnako état accompagner état daf leen subventionner état dafa am lo le plus souvent boo au niveau du guichet nga créer ben entreprise dañ la naan dañ lay may deux ans yo xamante ne tu es exonéré de taxes mais lolu yëpp forme aide la pour aider les entreprises à émerger ñu suqaliku mëna nek en pleine exploitation mëna atteindre yenn capacité yi ba war mëna tollu en tout cas ci investissement et tay quatre groupes d'entreprises ni ma ko mën yi nga xamné mom lañuy subventionné ñun lool lañuy xaar ci yeen dañuy ñaan yàlla en tout cas que li ñu def ni tey année prochaine bu ñu fi toggee évaluation ngeen defal ñu seen état de euh, financier c'est important ngeen defal ñu seen état financier bu fekkee ne am na ay difficultés ñu war leen a mën a renforcer leen parce que loo gis nag dafay am benn phase test tey dañoo nekk ci phase test parce que c'est une première dans la commune ñu ngi leen di xool li ngeen ñu présenté sur papier da fay lo ne ñepp apprécier nañ ko d'accord nañ mais l'expérience nous a montré que dafa am ñaar lañuy bind ci ak la nga xamne mom dañuy def différence bi té ñun da fay tax ba dal leen mais ñun rapproché wu en tout cas de monsieur Diom waxnako l'accompagnement et kooku il a fait ce dafa am solo di ngeen suivi évaluation nous sommes dans la commune au Sénégal des 550 collectivités locales la plus industrialisée de ce pays ça ne s'explique pas que nous avons autant de jeunes au chômage ça ne s'explique pas muy fait, xamante ne dafa parce que l'entreprise. est bu du ñu ñëw ci mairie bi pour enrôler wu wala def demande de quoi que ce soit dañuy dem banque outil seen i prêt def seen financement bu ñu duggee commencé liggéey ñu am ay profil yoo xamante ne moom la ñu soxla seen i profil yooyu c'est pas des gens qui vont écrire la mairie pour dire que écoute jox nañu soxla nañ lii yónnee ñu ay emploi qualifié lii nañ soxla emploi non qualifié lii nañ soxla déedéet toujours ngeen ubbi journal gis ay annonce telle entreprise mi ngi ci commune Hann Bel-Air ni ngi tel profil ainsi de suite ainsi de suite mais et pourtant bari na ñoo ne dañuy faral di ne ñun euh, comprendre que qu'il y a beaucoup de chômage Ceux qui bon ça je je leur fais cette concession c'est des adversaires politiques que c'est la faute au maire mais Mansour Tambédou mënul futif, nekk fautif Amadou Dia ñëw nekk fautif Babacar Mbengue pas fautif cela veut dire que le prochain bii ñëw bu ñu gisee constat wu chômage bi dañ aussi qu'il est fautif moo tax damay faral wax toujours ne dee leen am courage publiquement engagement boo leen di jël na ngeen xam la ngeen di jël lan la parce que yàlla mooy fal te mën na fal ku ne tay da ngay tok di wax yalla bu la bëggé nattu rek tak la fenn nak la nga doon wax yépp nit ñi tok di la xol dañ ah mom day kon c'est fini mo fi doon wax mo fi doon wax mo fi doon wax ñu né mais pourquoi lolu amul donc dafa am lo xamante c'est une réalité liñ par rapport à ces entreprises la solution est mooy